waaw le jeune gis nga difficulté maanaam situation bu tar boo xam ne yow moom ngay dund affaire yi dang liggéey amul financement amul foo yëngatu mu taxaw xéewal bu rëy la pour yow maa la ko wax xéewal bu rëy la pour yow am na ay nit yoo xam ne tey jii booy jàngat seen jaar-jaar fi ñu yëg si tey ci xéewal fi ñu yëg si tey ci manoore xam nga lan moo leen ko indil difficulté bu fekkoon ne dañ nekk ci lu nooy kon li ñu am tey duñ ko am c'est pas si dañu yëg si ci dañu yëg si woon ci ay tàng-tàng yoo xam ne dañu nekk doo au mur lii tubaab yoo doo dos maanaam sës nga mu ngi mel ni tey jii nga sëñatal benn benn benn muus mu yëg si mu tiit nga tiital ko sëñatal ko yóbbu ko doo au foofu day jàmmaarloog yow gis nga difficulté yi nga nekk da ngay jàmmaarloo ak moom kenn du la ci génn yaa ci génn sa bopp xéwal yi nga yaakaar sa borom sa borom jox na la ko mu ngi ci yow da nga koy jëfandiku ci jëfandiku boo xam ne moo ci am te jëfandiku bi du dara utal solution ci problème yooyu mën nga ci am solution parce que am nga xel boo xam ne day nàcc li tax gisagoo solution dafa am ay ay lënt-lënt yoo xam ne moo nekk ci bopp ñu gëm loolu ko tey jii bu fekkee ne da nga bëgg a liggéey te yow defe nga ne liggéey boobu rek mooy sa bunt sa yitte yëpp ak sa jom yëpp ak sa lépp yaa ngi ko def ci damay uti liggéey damay uti liggéey jàmbaar nga gaa waaye yoon wi nga jël du boobu te jii bu fekkee ne da nga bëgg a entreprendre te nga ne tey entreprendre bi may entreprendre il me faut cinq cent mille mbaa doonte cinquante mille mbaa boog sama tool bi dama bëgg am benn benn benn teen pour mu mën a am ndox mbaa dama war a am financement sàngam nga kal ko foofu nga yëngatu suba ak ngol pour financement bobu baye nga yoon wi gis nga mbir mi metti na reculer nga jangat situation bi nga xam sa bop parce que ya gëna xam ñëpp sa bop xam nga li nga man ak lo manul gis nga problème man ti am problème bo la mu rëy rëy jël jëla problème bi nga sembat ko nga def ko sans petit problème manam problème bobu ni mu bindoo

àddina noonu la demee ku ci nekk rek ak sa tolluwaay. tey jii business bi nga xam ne moom nga bëgg a def am na téeméer yu koy def mais téeméer yooyu tey jii taxaw nañu yow yaa ngi bëgg def la même business mais yaa ngi xaar financement ok léegi financement boobu comme fi mu nekk problème la te fi mu nekk nii mu ngi lay gàllankoor est-ce que mbir moomu mënoo ko xoolaat neneen ci sa xel nga nàmm ko nga jàkkaarloo problème bi nga ut solution boo xam ne du jaar ci financement.

man dama lay jox nii tegtal mais business boobu yaa ma ko gën a xam fuuf kon yow yaa ci mën a dem ak sa xelum bopp dama lay jox nituwaay rek nga dem si sa biir nga xool sa vécu nga xam li nga mën ak li nga mënul li nga attan ak li nga attanul nga xuus si loolu yàlla na la ubbil bunt bari na fii ma indi la ay jaar-jaar ay nit yu nga xam ne li tax ñu réussir mooy ay difficulté bu fekkoon ne amuñu difficulté maanaam dañu xëy suba rek ñu ne leen liggéey baa ngi nii ñu xëy suba ñu ne leen financement baa ngi nii du ñu def dara parce que lépp mu ngi fi loolu mooy tax bu boobaa dañuy yonjax parce que seen xel dootu nàcc amatuñu fighting def nañ ne lépp mu ngi fi bu ko defee loolu moo leen di miirloo dañuy xëy suba rek rot du ñu xam sax lan moo leen daaneel nit ay solution pour mu ñëw ay problème mooy tax bu problème amul solution du am donc utal ay problème pour utal ko ay solution mais boo bëggee lu nooy doo dem fenn ñaari nit jóge nañu ci benn situation ndóol ñu dund ci ba yëg si doon ay njagamaar ñu war a jëflante jànkonte ak seen àddina kenn ki jàpp ne man mi ci ndóol laa juddoo samay bàyyi si la jaar ndóol laa xam ndool bi dafa doon loo xam ne fatalité la maanaam mënuma ci jéem dara parce que ma ku ma jàppale ma am financement aw ma nijaay boo xam ne ministre la awma koo xam ne wax a wax a wax a wax ci même situation bi keneen ki nee na ma ndool bi nga xam ne si laa juddoo dem naa doo au mur bu ci samay waajur ak ñëpp nërmeloo man duma ci nërmelu li ma dal nii muy ndool bi dama koy def une force pour mën a jóg pour am gis nga kooku mooy toj àddina lépp fii la ne bàyyi ci xel ziar naa la